ñi nga xam ne yéenay laajte mariage Sadio Mané bi dëgg la am du dëgg si dëgg la kay nam ko waxee woon noonu la ko defee daf ne woon du takk jigéen boo xam ne day nekk ci réseaux sociaux yi naam jigéen buy nekk ci réseaux sociaux yi taxut a bon waaye léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne mooy loolu Sadio Mané takk na jigéen joo xam ne uuru ay ni la ko tuddee ndax seen waa koñ dañ ko ko seedeel macha allah ci yar ci teggin ja pour mu siggi sax xool nit lu jafe la l'essentiel daal ñu ngi koy ñaanal sëy bu barkeel sëy bu njëkk ñu ngi koy ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu saawaan baawaan ay la de ba fekkee mariage Sadio Mané